فاز الذين حافظوا على سيام زين بأول خباب للإيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بأول خباب للإيام والصلاة والسلام على العلم المقيم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بوك جلدي توفي أكني سأو عند نمتي سين خل أكسين خل خرابك دي بولنا بوك تربية نوي لندنيو ñoo ngi leen di ziar ñoo ngi leen di ci weeru tedd wi leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu am mbégte ci àndaat ak yéen jataay bi muy jataayu xam-xam ñu ñëwoon tey amoon yéene waxtaan ci lu am solo ci àdduna rawatina ci ab jullit rawatina ci yoonu murit muy ay teggin ak solo si mu am ay teggin ak solo si mu am ci yoonu Sëriñ Tuubaa yoonu murit waaye man damay wax ni solo si am ci àdduna bépp rawatina ci ab jullit rawatina ci ab murit waaw noonu lañ koy mën a tudde ndax murit mooy jullit bu bu dolli bu dolli dolli lu bare bare bu bu jàll murit mooy jullit boo xam ni dara ñorul ko lu dul ngërëmu Yàlla kon kooku lu ñu ñor na ci jullit yëpp moom mi nga xam ne bàyyi na bëgg-bëggi boppam bàyyi jëmi boppam bàyyi lépp lu dul gërëm yàlla kooku la gën ñor ci moom ndax ngërëmul yàlla mooy li gën a kawe ci lu nit war a sàkk suñu borom moo jox ci alxuraan yi wa min allaahi akbar jëmm ji nga xam nag dafa jóg dëgmal loolu yi muy ngërëmul yàlla loolu yi kooku la ñuy wooye ab murit te suñu boroom saxal ci alquran di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko fexeel ba ñooñi bu leen dàq bu leen dàq wala tatrudi alladina yadcuuna rabbahum bilgadaati wal ashiyi yuriduuna wajha li ko boroomam nga xam ne dañuy woo dañuy jaamu seen boroom ci suba yi ak ci ngoon yi te bëgguñu ci lu dul ngërëmam fexeel ba bu leen dàkku ci say jataay waaye dolliwaate ni ko deel muñ sax ci di jataay wa ak ñoom wasbir nafsaka مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ni ko na nga téye sax sa bopp na nga muñ ngir di jataayu ak ñoo ñi nga xam ne dañoo sax ci jaamukaayu yàlla yi guddi suba ak ngoon te bëgguñu lu dul ngërëm yàlla kon buñ waxee solo si ab yàpp solo si ay teggin am ci yoonu murid damay wax ni solo si yoonu solo si ab yar am ci nit rawatina ab jullit rawatina ab murid te ab murid bu ñu ko waxee mooy nit ki nga xam ne dafa jóg dëgg mën ngërëm yàlla kon li ma jublu rek mooy ak murid bu ñu ko waxee tekkiwut rek askanoo ci kuréel sàngam mbaa kuréel sàngam waaye li muy tekki mooy jullit dëgg bu caaxaanu ci lim nekk kon xaqiiqa la bu sax ci alxuraan waaye da di sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee dafa yeesal bëgg ngërëmul yàlla ci xoli nit ñi ña ko jëkk nangu topp si ko ñu di leen wooye ay murit kon li tax mu doon alam ci ñoom mooy dafa yeesal bëgg ngërëmul yàlla defal nit ñi ña ko jëkk a wuy ñu di leen wooye ay murit noonu rek la demee kon murit mooy jullit bi nga xam ni dëggu la fi imaanihi dëggu fi islaamihi dëggu it fi ihsaanihi boole ñetti marsa ba yëpp dara dañoo def ko lu dul ngërëmul yàlla doog a mën doon ab murit moo tax sëriñ bi tudduñu ko rek taalibe boppam ni mooy murit waaye kay wut ngërëmu yàlla ak fu mu ko man di wute ab murit la ko sëriñ bi tudde moo tax mu ne fa kullu wëldin yuridul murida li xadratillaahi walan yaxiila wërd wu mu doon rek dana yóbbu taalibe dana yóbbu murit bi ci teew yàlla sawaaun intama ila aljilaani aw intama li ahmada tijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan hasan kon tuddewul rek ab taalibe muy ab murit waaye képp ku jóg di wut ngërëmul yàlla ak foo ko mën a wute sëriñ bi moom ab murit la la tudde ma ma sàmm moomu waaye daje ak umpule mooy yóbbu nit ñi ci bu ñu ko waxee am ku fëgg dana bi man mii ñu wax mbaa bu ñu ko waxee am ku jël ay dal jóg dem ñu wax mu bëlewu na ma ne loolu ak umpale moo koy def ñaar kon teggin yi ñuy waxtaane ci li ëpp solo ci dundu murit la bokk waaye nag du luñ moomale benn kuréel rek ni ñoo ci war a dox ña ca des bokkuñ ci dafa nag loo xam ne dañu koy sëdd ñëpp ko bokk yonente yi ñooy ñi jëkk a jëfandikoo teggin yooyu yi seen diggante seen boroom jëfandikoo ko seen diggante ak nit waaye ngir ñu xam solo si mu am moom teggin yooyu solo si mu am ci dund nit ñëpp rawatina ci dund jullit yi rawatina ci dund ab murit ngir ñu xam solo si dañuy xam dëgg dëgg yi ay teg mooy lan lan lay teg arab mu ci cosaanu làkk arab li mu daan teg mooy woote ay bernde teg ay ñam woo nit ñi ñu wuy si ngir ngir ñam woowu loolu lañ daan ay adab ñun ñoo koy tudde teggi woote boobu nag bépp yiw buy jariñ leen ci àdduna mbaa mu di jariñ ci àllaaxira képp ku ko woote rek woote boobu la tudde woote al adab muy ay teggi boroom xam-xam yi ci manam istilahi yi ñom dañuy wax ni amna ci ñetti xamle yu ñu xamle ne lii mooy al adab ci ñom bo defé na ci andi ñett yi ci ëpp solo rek ibnu hajar al hasqalani dafa wax ni al adab moy jëfandikoo lépp lu yàlla di sant ci wax ba jëf lépp lo xamni neex na yàlla moo xam wax la moo xam jëf la rek loolu dugg na ci biir cadre ay tëggin am ku ñuy wax ibnu xayim ibnu xayim al jawsiya moom dafa wax ne al mooy dajale mbooleem jikko yu baax jikko yu baax kon day mel ni li tax man ni mënta ñàkk ci waxuma la dundu jullit waaye jëmmi nit ñi ci seen jëm bopp rek ñoo ko soxla mooy ñi jikko yu baax yépp rek la ay teggin di tekki kon ku ne xam na solosu jikko yooyu am ci islaam kon war na ci jullit bu ne mu taxawu ak teggin yooyu te islaam soññ nit ki ci mu fonk teggin yooyu digganteem boppam jëmmi boppam fonk ko ci ak njabootam ci taxaw ci ak njabootam taxaw ci ci ay soxnaam ak i doom ak ñi ay tëw li suñu borom wax ci alquran yaa ayuha amanu qu anfusakum wa ahlikum naar fegal leen seen bopp ak seen njaboot sawara loolu suñu borom moo digle ci alquran fegal sa bopp ak sa njaboot ci sawara nag tekkiwul lu dul yar sa yar sa njaboot ci jikko yu baax yi nga xam ne moom la yàlla yónni woon yoon yonent yi yar sa bopp yar sa njaboot ci jikko yu baax yooyu moo tax mooy fekk gi suñu borom di wax ko fi mu mel ni fegal sa bopp fegal sa njaboot sawara ci ñetti yoon yi lay jaar jàngale ak yare ak di fàttalee foo toll jàngale ak yare ak di fàttalee foo loolu la suñu borom nettali ci alxuraan ko suñu maam Ibrahima ñaanoon ko ko rabbana wa baas fihim minhum dañu yàlla yàlla na nga yebal fii ab yonente bu bokk ci ñoom yatlu alayhim ayatik mu lay leen di jàngal say kiimaan bu ñu waxee al ayat ni al ayatul quraniya ana ni aaya alquran ni nit di settantale aaya alquran ngir xamee ci ne yàlla rek yi buur noonu la nit di setantale al ayatul kawniya te mooy bindee fi yàlla yi noonu la nit di setantale ngir dégg ci ne yàlla rek yi moo tax yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba mu di leen jàngal téere bi wa yusakkihim mu di leen defar tazkiya mooy defar nit ki tarbiya ko waajal kon ñett yooyu mooy yoon wi nga xam ni ci la ñuy jaar ngir defar nit ki ba mu am melokaan wi suñu borom gërëm jàngale ak di fàttalee ak di ci yar nit ki doomu aadama suñu borom dafa bind ci ak réer di nit di ñëw ci àdduna indiw tomb xam-xam kon mënta ñàkk ñu jàng waaye suñu bindee doomu fàtte mënta ñàkk ñu di ko fàttali fàttali bu tëb bu tëb su borom bind nit li nga koy jàng loo ko mën a wax boo ko ko wóonul woon ko misaal mu gis ko bootul du ko mën a dégg moo indi yar yar tekkiwul dara dul jàngal jàngal la ni ñuy jëfee li la doon wax nga xam ne fokk nit day jiitu di ko jëf ngay gis te yar boobu bii moom la sëriñ bi tënk ci ñaari dërëm defar nit ki ba ba li suñu borom bëgg ci moom ci ay jikko mën a nekk ci moom ci ñaari tomb la ko sëriñ bi tënk benn mu tudde ko at taxliya bi ci des mu tudde ko at taxliya at taxliya tekkiwul lu dul raxas ndab li ba mu set at taxliya tekkiwul lu dul ginnaaw boo raxas ndab li nga def ci li nga ci war kon serigne bi ci ñaar yoy le teunk mom ni ñuy defare nit ki fokk mu rek ko te mooy ñu rax ko bam set ci lu dul nona doga a nak lañu ci bëgg def ci lu set def ko ci bir ak tahliya wa tahliya kon defar nit ki ñu ngi tamlé ci nga fexe ba jikko yu bon yi nga dindi ci mom bu noté rek nga doga a jikko yu baax nga sotti ko ci ci biir loolu yëpp liñ war a ko yi nga xam dañ cee war a raxas ndabul nit yi ba mu set ñu dotaagal baax moom lay tudd awral razaa'il ay bon yu nekk ci nga xam dafa taq moom bon yooyu it mu seddale ko ñaari xaaj am na koo xam dafa feeñ ñu war koo xeex mu daj am boo xam dafa nekk ci biir waaye am na yoon yu ñuy jaar moom itam ngir xeex ak moom mu daj radail la ko tuddee mënta ñàkk ñu raxas ko ci nit ki ba mu set ñu dol koo takkaayale al fadail te mooy nañu raxas ndab li ba mu settee ñu doog a fab nag la ñu ciy def te mooy ngëneel yi dugal dootu caa mën a def li ëpp solo ci fadail yi te mooy ngëneel yi nga xamante ne ginnaaw bu nit ki

liñ soxla ci ndab li moom la ahlul tasawuf tudde maqaamaat yaqin booy fee buñ ko jàngalee nit ki ba ci yemukaay tam am yoon wu ñuy jaar ngir jàngal ko buñ demee ba ci yemukaay la mu koy indil ci ay jeexit li mu koy indil ci ay effet ci jën boppam nag muy melokaan wu mu war a mel diggante mag nit ñi ak melokaan wu mu war a mel diggante mag yàlla loolee la ñu tuddee al adab loolee mooy ay tegge ci moo tax ñuy wax ay tegge ginnaaw bu nit ki jaaree ci yoon bi mu war a jaar ñu raxas ko ba mu set mu mucc ci jëw ak fen ak rambaaj ak ya ci àgg léegi mucc ci rëy ak njëstal ak xeeb nit ñi ak yéem boppam ak ya ci àgg ñu takkaayal ko mel ni lii ma doon tudd te mooy bu tàmbalee ci tuub muñ sant ragal yàlla yaakaar dëddu adduna ak ya ci aju ginnaaw bu yooyu yëpp bu amee jeexit jamu def ci nit ki jafe-jafe la ñuy tuddee al aada mooy andi teggin bu ko defee nag day feeñ ci nit ki ginnaaw xam ne defaru na dana feeñ ci ni muy jëflante ak borom dana feeñ ni muy jëflante ak i moroom te jëmmi teggin yooyu nag nga xamante ne bu nit ki jaaree ci julli yu bari yaag woor yaag sikkar yaag defaru ba defaru bañ ne defaru na ba teggin yooyu ñëw nag teggin yooyu la sëñ Tuubaa ni mooy li mën a eggale nit ki ci yàlla teggin yooyu képp mooy liy jàpp nag ci loxol doomu aadama pour yóbbu ko ci yàlla mooy jàpp yi ci loxol nit ki ñëpp jógal ko aljana waaye yam doon def li fekk amagul melokaan yii ñu soxla ci moom jàllagut kon julli yu bari ak koor yu bari ak ci kar bari lañu ñu ci mooy defar nit ki ngir mu am jikko ju baax ngir mu am ay teggin digganteem ak borom am ay teggin digganteem ak imam morom moo tax moo tax sunu borom wax ci alquran inna salata tanha an alfahshaai wal munkar waaye nag li féeg nit ki bon bon yooyu suñu borom bëgg mu dañ ci moom dañu wut julli gi muy julli nangoo buñ ko comme ak julli julli gudd daal lay teg kon loolu moo waral teggin yooyu nga xam ne moom ginnaaw bu nit ki soree lool ci ak jaamu yàlla xóot ci lool résultat ba mu koy jox mooy mu am ya ab yar bu mën a jëflante ak boroomam am ay teggin yu mën a jëflante ak i moroomam te loolu yi sëriñ bi wax ne mooy liy jàpp ci loxol nit ki di ko yóbbu ci yàlla mooy liy jàpp ci loxol nit di ko tàbbal aljanna moo tax sëñ bi jox ko itte ju kawe moom ak yàlla am na ku mu wax ni atruqul muusilatu ila taala ala adadi anfaasi wa aqrabuha ila allahi al yoon yi eggale nit ci yoon yi mën a eggale nit ci yàlla toll na ni nooy toll na ni nooyu mi dee waxul sax ne toll na ni mi dee waaye toll na ni nooyu mi dee waaye bi ci gën a jege yàlla mooy ay teggin ñu ñu gën a daal tax danaan wax ne moom sëriñ bi daan ne kër gi yar bi kër gi yar bi ku ko yóbbu yóbbu lépp waaye ku ko fi nag yóbbu dara ak tasawufu kulluhu adab sëriñ bi ni kër gi yar ku ko yóbbu yóbbu lépp waaye ku ko fi bàyyi yóbbu ko mu ñor leen maa ngi dàng bay yu sëriñ bay jaxate defal la fi yëpp laxat yoo xam ne dafa dem mu di ko soññ ci yar boobu teg nii mu mu àndal ne ko na saw fan gudd mbàkk yow ya da sax ci jàmm ko ñëw jaamu yàlla bu wér farlul ci yàlla ngay for dog sedd sa xol te mucc ci ay ndog sax ci jëf lu la war toppal sama Moustapha bul génn yow ndigalam ngir mag mu mag la mat ñëpp pour sëriñ te du wax yar bii nga am yor ko biir ak bitti moo di sa kee moo gën ci yow nit ñu baax ak kër yu baax ak i jur sa bàyyi génn ñëpp tab yam dong la yor yoral yaram bi ba te koo gis dee ko sant ka yar sa bàyyi nga ñëpp ab yar ngir dalay jox a jox ab yar ba ngay ama am ab yar te doo mos yar du yëkkati yar di teg nit waaye moo gënu nit ñay teg nitub yar ak ay jànni ko yeewa ko la na fa xam dafa wax ni amul yaree tax ñu xëy fab nit ni teg ca kaw ñàkkub yaree tax ñu teggee ca kaw di ko caf mu mel ne kon loolu yi sëriñ bi wax mooy kër gi yàlla ku ko yóbbu yóbbu nga lépp koo fi bàyyi yóbbu woo dara sëriñ bi jox ko ittale wax na ne xam-xam lu mu bari bari bari bari bu ànd ak yàlla ay coono rek lay indi nit ki ak kasratul ilmi bi gayri adabi daalibatun ilal ada wa taadi wax na ne xam-xam lu mu bari bari bari bu àndut ak yàlla dafay yóbbu nit ki ci ay lor ak i coono waxit ni ab yar bu ko nit xasee am dana nëbbu bu fekkee ne dafa réer yar bi dana ko nëbbal réer bu fekkoon dafa bokkoon ci askan wu ñu daan xeeb boo amee ab yar loolee yar bi dana ko nëbb mooy xamdan liman jaala xusna al adabi yuxfi jahalatan wa xubha nasabi sëriñ bi jox ko kon itte ju kawe ndax sëriñ boobu ñuy wax masalikul jinaan te mu tënk ko ci ñetti bunt buntu ñettal ba mi ngi ko def ci ay teggin ak i ngëneel wax na ci njëlbeenu buntu boobu ni na nga xam ne li gën ci lu nit di waaje lu nit li gën ci lu nit di waaje mooy ay teggin ab yar ak i ndax wax na ni ci ay teggin lu nit di àgg ci yàlla waaye du leneen لأنه به إلى الرحمن يصل عبده وإلى الجنة وحدي كيف كيف بقى أقرأ تيالا أمو أي تجي أبدا وحدي كيف كيف كيف بقى أقرأ تيالا تأنل أكي تجي دفع فكل من بغيره رام الوصول لحضرة الله فغمر لا نبيه wax ne képp ku wax ne da bëgg egg ci yàlla te bëgg faa yóbbaale ak ñàkki teggin ab daf sëriñ bi wax ni wax nañu ni teggin buñ ñu xaajoon diine ñetti xaaj ñaar yi mooy ay teggin ñaar diine bu ñu xaajoon ñetti xaaj ñaar yi ay teggin léegi nag mu ne nag teggin dañ koo xaaj ñaari xaaj benn bi mooy teggin yi war a dox diggante nit ki ak borom bi ci des mooy teggin yi war a dox diggante nit ki ak nit ñi mu wax na ni bi war a dox diggante ak nit ñi moom la ñuy tuddee al adabul zaahir mooy teggin yi fedd tegg yi war dox diggante mag boromam moom la ñu tuddee al adab al baatin mooy tegg yi nëbb waaye bi di dañuy jàppalante boo rafetalee teggin yi war a dox si diggante ak sa borom moo la mën a yóbbu ci nga mën a doxal teggin yi war a dox si diggante ak nit ñi waaye bu lee rafetul sax nit du mën a rafet moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ku bàyyiwut wax bi ñaaw ak jëf bi ñaaw ñàkk lekk gi ak ñàkk gi ngay ñàkk naan ngir ni dangaa woor suñu borom amul ci ñàkk waaye la muy def ci yow la def ci mooy eh, def ci moo tax yonte bi ne képp koo xam ne bàyyiwul wax bi ñaaw ak jëf bàyyi ga muy bàyyi ak lekkam ak naanam suñu borom amul ci soxla kon dama jëkkee tegin yi nga xam ni moo war a dox diggante nit ki ak borom te bu ko rafetalee moo ko mën a yóbbu ci mu mën a jëf tegin yi nga xam ne mooy dox digganteem ak nit waaye saa bu nit ki rafetalu diggante ma borom keneen comme wax ni rafetal na diggante ma moom it daf koy nax ndax mënti nag ndax nit ka ko bind di ko wërsëgal may ko kàttan lépp lu mu ragal mën ko caa musal lépp lu mu bëgg mën xaraam mën ko mën ko koo may bu xamee loolu ba noppi mooy comme ne topp da koy topp daf koy nax moo taxoon nañ jëkkee teg li nga xam ne mooy dox diggante nit ki ak borom sëriñ bi limu ko bi muy wax tege ci masal bi ñaan nekkul di limu teg yi war na wax tege ci borom ndax daa bari waaye dafa dafa indi lii ay ñàkk tege lii ak ñàkk tege diggante bi ak yàlla loolu rek la la lim tudd na ci ñaar fukki melo ak nangam yoo xam ne lu ci ne ak ñàkki tege lay teg diggante nit ki ak borom waaye bu bëgg lim lim tege nii limuwut ndax lépp lu nit ki séq diggante mu borom jullit lu mu séq diggante mu borom rek day dugg ci biir arame yi kon loolu duñu luñu mën a waaye day indi lay ak ñàkk tegg bi mu andi ci ñaar fukk ak nangam yoo xam ne boo ci muccee mën ngaa muccee ci kon sëñ bi ci masaal bi muy lim bi muy wax teggi nii diggante nit ki ak borom nekkul ci lim waaye lay ay ak ñàkk teggi la wax bëgg nit ki fexe caa mucc bu jaxasee mucc rek léegi baax na wax na nag ni lu mët a woyofal la ndax képp ku ko ñaawal la lay dàkku ci biir yàlla ku ñaawal teg ne yoo dox yoon lam lay jural mooy ne xam na ci béréb boo xam ne yaakaar la muy teg ci nekk da ci nekk ay tuuti ak kon la mu njëkk indi ni ñàkki teggin la diggante nit borom mooy critique yàlla yàlla dogal ba noppi ngay ngay nattali dogal bi ci ni xaj na bu meloon nii lay gën mbaa bu ko doxale woon ne lay tane mbaa bu meloon nii façon critique boobu képp ak ñàkki teggin lay tekk ci diggante kii ak boobu waaye mu teg ci bu mat xel bu am solo muy critiquer nitu yàlla nitu yàlla critiquer ko man na tax ñu dakk nit ki ci tëy yàlla yonent bi wax moy man aada li waliyan faqad aadantuhu bil haqq kep ko ma non non sama wadi te wadi moy ki jaam yàlla ba jege kep ko ma ko noonul déclaré naa la guerre su borom moom hadith xadis kursi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni يلا مو واحد من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق داك واحد لي ماي لي ماي نتي مود الولي تموي سخت جام ولا يسلم وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه لا دو نتي نك جامو وما لوما غنني لما فرتا تي مو واي دينا بو فرتا بي جالال دينا بو فونك بي جالال wala yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafili xataa uhibbahu nit ki di du dañ di ma jaamoo ci ay nawaafil ginnaaw bu mu def farate ba mu bëgg ko fa idaa ahbabtuhu su ma demee ba bëgg ko nag kuntu samaahu alladi yasmau bihi wa basarahu alladi yubsiru bihi wa yadahu allati yaqtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha maay doon loxoom yi muy jàppe maay doon noppam yi muy dégg mooy doon tànkam yi muy doxe lépp lu mën laajee si ma jox lu mu musloo si mu musloo si dafa wax ne ku ma noonul sama wali déclaré na la guerre daal di leeral kan mooy wali ki nga xamante ne daf ma jox samay farata ba ma sëkk mu continue nag di ko def waaye sëriñ bi muy lëm ñàkki teggin diggante nit ki ak borom ne critiqué dogal bi yàlla moo ci jëkk da caa tegg ni naka noonu critiqué wane nitu yàlla loolu bokk na ci lii tax ñu dàq nit ki ci péeyu yàlla waaye mu ni bokk na ci ñàkk teg diggante ci ak boroomam ba tey suñ boroom tànn nit ñi yow nga am leneen loo tànn jàpp ni noonu la mooy suñ boroom tànn ba nit ñi la nga am leneen loo tànn jàpp ni noonu la loolu la wax ni du ay teggin diggante nit ki ak boroomam te loolu mën naa tax ñu dàq nit ki ci pay bi ñu dàq dàq diggante mosu mu dàq dafa wax ne bokk na ci ñàkki teggin diggante nit ki ak borom rawatina murid bi ki nga xam ne dafa jóg rek ñu ngërëmu yàlla képp ko ñor bokk na ci la nga xam ne ñàkki teggin diggante ak boromam muy gestuwaat nit ñi ci dara moo xam am lenn lu muy xeemal ñoom la mbaa am lenn lu muy ragal ci ñoom mbaa am benn njàmbat bu muy jël di leen ko jox jàppal ma lay ko jël wala wax ni ñàkk teggin la ci murid bi di jóg soobu yëpp wut ngërëmu yàlla mu set mu doog a mën a ni bokk na ci ñàkk teggin ba tey diggante nit ki ak borom xéewal yi la suñu borom defal xéewal yi la suñu borom defal nga di ko jëfandikoo xéewal yi nga di ko jëfandikoo te jubluwoo ci ak topp yàlla mbaa jubluwoo cee jaar ngir topp yàlla day bëgg nit ki ba ci buy lekk buy naan buy solo buy jaxasoo lu mu doon rek ni ci yéenee ak topp yàlla mbaa mu yéenee cee jaar ngir mën a topp yàlla dëgëralu ngir mën a topp yàlla waaye nee na jëfandikoo ko rek daal bu lekk jotee nga lekk ko rek def nelaw jot nga nelaw rek def te jubluwoo ci yéene woo ci ak topp yàlla yéene woo ci jaar ngir mën a topp yàlla loolu la wax ni ñàkki tegin la diggante nit ki ak borom naka noonu xéewal yi suñu borom def yàlla day def lu mu tere jàmm rek daganal na ca pegg ba lu ko mën a wut mun nag yi yàlla daganal nga jël ko di ko jëfandikoo ko nag bañ a mooy fi yamu araam loolu ñàkki teggin la diggante nit ki ak borom ndax dañ na ni dara du laa ñorul ci li muy def léegi li muy def dañuy jël lu dagan ba noppi na sëñ lay wax bokk na ci ñàkki teggin ni diggante nit ki ak borom murid bi lay wax murid bi bi bi bi jóg nag murid tutur rek waaye murid diggantaan boo xamante ne ngërëm yàlla la bokk na ci ñàkki teggin ni diggante ak borom muy nelaw bëccëg te foogutoon guddi boo fekkee da ngaa fanaanee xole ci guddi dagan na nga nelaw bëccëg yow dagan na ci murid bi nelaw bëccëg waaye nag bu fekkee fanaane wuti xoole ba noppi bëccëg bi mu am bi di nelaw nee ay teggin digganteem ak borom waaye nag waxuma murid ci tudde nga xam ne ngërëmu yàlla ak ñett mu dëgg ci moom kooku la suñu wax naka noonu tëdd fenn dafa xaar ay nelaw ginnaaw nga xam ngërëm yàlla dong na la ñor ba ngay daal tëdd fenn di xaari nelaw di bin bin loolu nga nekk ngir bëgg nelaw du ay teg digg ngir dafa war nekk ba nelaw natu ko mu nelaw te saa bu jóge jóge jamono bu ne danaa di wax ne liy farata ci ay nelaw mooy nelaw yi nga xam ne dangaa gëmeentu nelaw kenn fëggul dara dara yeewu la nga dem ba jékki-jékki rek xefet yow loolu farata la jaaxal saa boo ko caatee sa mbaaji rek bakkan bakkan nekk waaye farata ji nga xam ne boo ko def toon mu lor la mooy nelaw yi nga xam ne da nga yeewoo kenn yeewu la nga nelaw bu njàng la ca mu toll rek loolu bi wax na bokk na ci ñàkki teggin diggante murit bii wut ngërëmul yàlla ak diggante ma borom bokk na ci ñàkki teggin diggante ma borom muy nelaw guddi ajjuma bu ñu ne sóolu ajjuma guddi googu nelaw ko nga naan ay teggin ngir nit ki mu murid bi ak borom yaakaar nga rek boobu ñi fi ñak ñàkk teggin dañu bari ñi fi amu teg waye wax na nit ni ne ba ci maamoom li sama yëfa ba li def may lor sax ba de sax murid bi dafa wad mo mooy digënté ma borom mako mom moom képp lu bul jàpp ne moom dara bu japp ni lan da lay lor baye bi ngay baye sax tawhid baye xel yalla baye xel ne lépp moo ko bàyyi xel ne lor ak jariñ lépp moom la bàyyi ko dana tax baat doo ko seen jëfandikoo nee na ay tege diggante kii ak borom nga xam ne boo ko fekkee baax léegi da ngay wax xaar boo wax suñu jëf nga daal di fu fu mu la fekk rek nga kabar daal du ay tege diggante nit ki ak borom waaye naka noonu naafila guddi nga tëkkale guddi yu bare bare rek da ñàkk nafale guddi sax nee na loolu du ay teggin ci diggante murid bi ak borom lu metti metti day bëgg da lay ci biir téere bi lu metti metti donte ñaari rakkaa la sax na nga jóg def boo demee ba mënoo ko jóg sax ci guddi gi lu mu tuuti rek toog ab jataay sax farat def yàlla waaye téppale bañ ñu naafale guddi la wax ni bokkuñ ci ñàkk teggin diggante ci ak borom ba jot mooy inkaar ak kër ci kuréel bi ñu ma waxoon mooy weddi yi ba noppi na ak ak di wut lu la jegeñal buur yi buur yi àdduna yi lu ci ëpp ñoo faral di ànd kay weddi lu ci ëpp boo ko xoolee diggante moom buur yi àdduna yi dana ci doxe doxin boo xam da ngay mujj sax am gerte lu tax mu weddee nitu yàlla fi nii ba noppi àdduna mu gën a ko sëriñ bi yi ak jegeñ lu sàkkoo jegeñ nit yi yi bokk na ci ñàkk teggin diggante nit ki ak borom ba ca des mooy woote ay maqaama tasawuf bii sëriñ bi doon jàngale ay woote benn maqaam bokk ci day bëgg nga doon jaamu yàlla boo xam ne li suñu borom di digle da nga nekk la muy tere di ko bàyyi waaye bu fekkee nit ki jóg dem ci yàlla la koy jëkk ndax lépp mooy ay gént ak ay kusufaat ak ay nangam nangam yooyu yëpp nee na ay teg léegi-léegi nit ki ak borom xam dañuy wax ni kashfu bu yàlla defal ñu ak mu tàggatal ko jaww lu ne nit ñi mën na ci moom ak muy ñaan muy nam yooyu yëpp moo ko wërsëg wii ñëw tekkiwul ab ceeb diggante nit kay borom tekkiwul ñàkk amu ceeb diggante kay borom ñaan mu nangu ak kasu ak yàlla tàggatal la loolu mbirum boppam la moo xam suñu borom mooy xool ku ko neex mu defal ndax eh, yonente bi ñuy wax Suleymaan ko tàggate loolu jënn yi ak nit ñi ak janaaw tàggate fi ngelaw te bokkul ci ullu ansam Isa ibn Maryam amul jabar amul doom amul kër amul fenn ab néeg te ci ullu ansam la bokk kon nee juróom wërsëg dañ mel ni wërsëg yàlla may waaye kon sëriñ bi nee na woote yeneen maqaam bokkul ci ay teggin diggante nit ki ak borom لسائلين والجميع فتى لكم لدى الفتور واللقاء يا قوم كرتان باتفاق